gis nañ fi kat pétrole ak gaz mënuñ jox njort ak espoir que ni véritablement bu fekkee am na gestion bu baax bu tegu ci transparence réew mi mën na ci gis boppam parce que am pétrole ak gaz ne veut pas dire automatiquement que mën nañ suba suba xëy nekk véritablement réew moo xamante ni réew mu mu mu mu mu barkeel lay doon mu am am solo ci wàllum développement parce que boo demee ci sous région fii bari na ñoo réew yoo xam am nañ pétrole mais est-ce que en réalité seen askan ñu ngay gis njeexitalu ressource boobu réew yu pare yoo xamante ni tey seeni population sax ci jafe-jafe la ñu gën a nekk parce que tout simplement il des entrepreneurs de violence ay lobby yu fa fexe ba créer ba ay crise xàjjale askan wa autorité ak askan ba ba teg loxo ci ressource boobu ba nga xamante ni buy génn sax askan wa du xam fu muy jaar donc jàpp naa ni la ñu war a gën a mën a ñaan yàlla mooy que ressource bi nga xamante ni véritablement c'est une ressource ressource du mas bu nga xamante ni aujourd'hui jàpp naa ni Euh, réew mu ko am rek la ñuy njort ni mooy réew moom moom mën na génn ci jafe-jafe yu baree baree bare Sénégal nag yàggul dara dañ ko inscrire OPEP organisation des pays euh, exportateurs defe naa pétrolier sigle bi defe naa noonu la fa lañ ko fa dugal mu nekk un cercle très dangereux parce que boo xoolee même crise pétrolière crise yi am yu bëree bëri yi am si àdduna bi yëpp ñoom rek en un claquement de doigts mën nañ ko indi parce que tey dañu ressource bi ñu téyee tax. on parle souvent de la malédiction. non ma waaw xam yi di wax kon nag nañu ñaan yàlla. parce que wax naa ko fi keroog bi ñuy wax ci waxu pétrole beeg gaz bi nee naa la le président Macky Sall ak lu ko waay mën a waxal amoon na intelligence su crise yi fi amoon xamoon na nu mu koy gérer parce que xamoon na ni am na ñu taxaw ci buntu réew mi bëgg a jaxase réew mi loolu nag bëggul toujours joxe occasion wu ñooñu mën a dugg parce que proté dafa doon protéger non seulement réew mi protéger aussi ressource bi ñu am parce que à l'échelle internationale aussi ak envergure am may na ko loolu kon jàpp naa ni loolu c'est une avancée significative Alioune Sall dafa am reportage bu nga xam ne dañu ko def BBC moo ko def defe daal su ma juum. oui BBC effectivement. wax si ba tudd si Alioune Sall même avant BBC di def reportage boobu en 2012 ci première tour bi ñu demee premier tour ba mu des deuxième tour le président Macky Sall moom moo tenir une déclaration wax ne am na xibaar yu ñu ko jox ca pale présidentiel ba waaye bu ñëwee lépp du fa di gabes yi ak lu jaarut yoon dina ko fa jëlee. le président Macky Sall la ko wax mais qu'est-ce qui s'est passé Adama wax na ko léegi junj na ko léegi ci affaire euh, euh, Franck Timis ak la nga xam ne décret yi nga xam ne ñu ngi doon profité pour signer ko parce que régime buy génn rek mooy li président Macky Sall def avant muy génn signé na ay décret yu bëri am na ay actes yu bëri yoo xam jël na ko Ablaye Wade ak ñamu àndaloon ak ki doomam ñoom Karim ak ñoom ñëpp la ñu doon profité pour defal ko Franck Timis loolu fi la ñu fekk tey le président Macky am ay patriotes yu sincère bëgg seen réew des démocrates des hommes dignes yu ko alerte cette situation mu jël kàddu googu daal di koy wax mais ba mu ñëwee qu'est-ce qui s'est passé amul un organe de letat bu mu yebal mu defal ko saytu ci mbir moom organ bi lan la ko xamal IGE effectivement lañ ko doon xibaar am na mais lan moo tax enguichurage bi mooy lan moo tax quel que soit xibaar yeen ko jox donte jox nañ ko xibaar ya ca loola mu ñëw poursuivre contrat bi parce que am na ñu ni y a la main de son frère Alioune Sall bu si ta loxoom taq loolu lañ théorisé woon à l'époque te la mu tal ca ay enquête ak ñañ ca dàq ñëpp tamit daf ñu gën a jox firnde ak soupçon ak doute que ni est-ce que véritablement est-ce que je dis est-ce que véritablement la ñuy waxal Alioune Sall amul. Hmm, man je le dafa taq yëpp ci pétrole bi. waat dama ni loolu mën nañu jox perception boobu mën nañu jox doute boobu parce que loolu jiloon na coow Alioune dafa am lu ma wax léegi man dama ni du ma ne lépp lu opposition bi di wax wala lépp lu Ousmane Sonko di wax c'est la réalité du ma ko wax. je ne le dirai pas je ne le dirai pas il était dans l'opposition amoon na un discours bu mu doon prononcé beaucoup de Sénégalais se sont retrouvés ci discours bi nga xamante ni moom la doon prononcé wu mais jusqu'à preuve du contraire jusqu'à aujourd'hui gisaguma lu blanchir automatiquement Alioune Sall ca lañ ko doon wax gisaguma loolu ñoom nag doon nañ wax waxu renégocier contrat yi effectivement li Seyna bu wax c'est la réalité amul contra bu ñu mënul renégocier quel que soit nag nu ñu mën a blinder contrat bi amul contrat bu ñu mënul négocier il peut y avoir des risques même mën na bañ a am ay risques su fekkee le parti concernées à l'amiable waxtaan nañ ba am consensus loolu moom du am benn risque mais risque bi mooy nga jël sa volonté dem saisir les tribunaux yi nga xamante ni ay tribunaux yu am dayo lañ nga saisir maintenant foofu bu dee fekkee ni yow la nga indi woon ci tribunal bi amul amul njeexital ci yow loolu mën na am ay risque te ay daan mën na la ci fekk. Euh, Adama nee na dëgg gi feeñ na de. ko feeñal dañoo guux pétrole yooyu ne daa amu ci. lu tax amul lan ba tey mënu ma ne am na wala amut du ma ko jugé loolu du ma ne dama dama ni dama ni moom dafa ni amut fum mu ko mën a teg. mais y la le pétrole qui bu ñu ko mën a teg. Ah, mais à l'époque dañu doon wax pétrole bi jaay nañ tay yu kenn xamul. ministre de, de du pétrole l'ancien ministre de l'énergie. oui Thierno Alassane Sall avait fait une sortie. oui te je crois que sortie Thierno Alassane boobu moo gënoon poussé yenn sénégalais yi daal di jël. gëm li ñuy wax ndax Thierno Alassane Sall nekkoon aussi. Thierno Alassane Sall avait parlé de l'affaire Total. c'est le contrat entre l'État du Sénégal et Total qu'il avait dit que le contrat n'était pas parce que dañu def favoritisme moo tax mu génn wax. Ah, total ba mu total ba mu demee dem dem. defi scandale yi sax xarala ma terminé non dama ba mu demee dem damay damay après jox la. total ba mu demee total ba mu total ba mu demee ba mu demee ba mu demee dem de def recherche. il a perdu tout son investissement. donc Aliou moom li mu doon wax que favoritisme dafa am amu ci. beneen bi beneen bi Aline lu tax Sénégal yu bëree bëri soupçonné woon ko c' est parce que dafa am ay scandale yu am ci mbir mi. dafa am ay scandale yu am ci mbir mi yoo xamante ni ay presse international ñoom ñoo ko révélé te xam nga fii pour la plupart ñu bëree bëri dañu am complexe ci médias internationaux yi lu ñu wax jàpp nañ ni gëm la man je parle de soupçon et de doute lu tax perception boobu sénégalais am Franck Timis bi ñuy wax Franck Timis ñëpp xam nañu amul une bonne réputation à internationale. même le fisc britannique dañ koy topp ci affaire fiscalité loolu ñëpp xam nañ ko c'est un criminel. maintenant JP Morgan. non JP Morgan. xaaral loolu duggaguñ si. non da nga ciy dugg wax ni ñi amul fiscal dañ koy topp. non xam nga duggaguñ si affaire affaire euh, li nga xamante ni concerné wul suñu sujet bu concerné woon suñu sujet la ma ca xam danaa ko ca wax waaye dama ne ñoom seen régime dafa bëri ay scandale comme je j'ai l'habitude de le dire des scandales épisodiques yu jox soupçon au peuple sénégalais que ni ñii lépp lu ñu leen waxal dëgg la te kan la leen doon protéger seen Macky Sall leen doon projet protéger donc la nga xamante ni Sonko yëkkati na ko jëmale ko si Aline Sall jusque là weddeeguma si dara officiellement weddeeguma si dara nee nañ renégocier contrat on les en ce sens. Euh, Adama ñu avancer rapidement. wax euh, question politique. Euh, man man naa ni côté boobu xam nga lan la ñu war a leeral. sëriñ nit ñëw na jox nañ ko licence. waaw jël na licence bi nee na gis na pétrole. Mhm. wala gaz jël na licence bi jaay na ko. benn major on est d'accord léegi major boobu mu ko jaay. xam nga am na xaalis bu mu ko jaayee. xaalis boobu état la la si am comme taxe. comprendre nga. waaw loolu tamit est-ce que état lu mu si am comme taxe ça a été reversé dans les caisses de l'état. waaw man loolu laay laaj. mais mais yow yow yow. Ah? journaliste nga c'est yow xam da ngay def ay investigation. waaw non non xam nga am solo. waaw mais mais mais foofu en fait en fait boo xoolee reportage yu BBC bi yëpp